bilaay jigéen yàlla leen teral ku leen teral di nga tekki jigéen yàlla moo leen teral yàlla moo leen suturaal yéen ay biddéew ngeen dañ leen war di nebb nebbal di leen bégal di leen woyal di leen feccal di leen reetaanal di leen jox xaalis bu bari ngeen di kontaan di nu ñaanal donc jigéen yéen yéenay sunuy yaay yéen yéenay sunuy jabar yéen yéenay sunuy or yéenay sunuy jamaa doc gisoo sax man moo tax ma taamu leen ne boo ma benn góor tiim ak ay micro na jigéen ñi ñëw na jigéen ñi ñëw darma vous les femmes je vous aime I love you bilaay jigéen yàllaa leen teral ku leen teral dinga nga tekki